yow yow lay waxal taxawal du noonu la ñuy interpeller nit d'accord euh, du noonu la ñuy interpeller nit yow yow laay waxal taxawal ma ni bon garaawul bàyyi ma muñ rek taxaw ma ñëw taxaw salué wul deful dara mu ñëw taxaw mu ma permis carte grise assurance man ko d'accord bi bii jox ko permis jox ko carte grise jox ko assurance mu yem ci permis ni ma doy na man ko d'accord ma toog rek di ko déglu mu pare bindal ma contravention euh, defal ma attestation ni ma utilisation euh, utilisation usage du téléphone au volant man damay sëñ xanaa balaa nga may defal attestation laaj nga ma sama permis ma yitti jox la ko balaa nga may defal attestation xanaa sax au moins di nga ma signifier ni ma lii moo tax ñu arrêté la mën ko dèjà benn ñaareel bi usage euh, téléphone au volant wax ma lan laa doon def ak téléphone bi téléphone bi da nga gis ma woote da nga dégg ma woote wala la la man maa ngi ni sa kanam laa laa droite ban instant laa utiliser sama téléphone man ma non parce que euh, téléphone bi mi ngi nekk sa loxo man ko non téléphone bi mi ngi nekk sama loxo ça absolument rien dire parce que dégg nañ tubaab

jël sama loxo di ko dugal sama poche man euh, moment bu ndaw boobu nga xamante ni mën naa def euh, preuve d'une attention mën na ma jural jiyee donc je préfère téléphone bi ma def ko nii ba wër rond-point ma dugal ko sama poche parce bi fii laa ko tegoon mu daanu mun ma non non usage man que non sëñ bi man sama téléphone dam lay may sax nga ubbi ko nga xool ndegam dama envoyé nga xool ndegam déjà ndegam euh, dama envoyé message wala dama dama dama dama dama woote téléphone wala dama wuy dam lay jox léegi nga xool historique appel mun ma euh, déggoo ma de usage nga def usage nga def je comprends rien léegi loolu yëpp grave mu def attestation attestation bi ñu ni il devra se présenter pour retirer au commissariat le 15 le 15 demain dimanche dimanche laa war a def présenter au commissariat pour retirer li nga xamante mooy sama permis dimanche jour jour férié euh, jour jour euh, weekend dimanche

mais qui n'y taxaw ni ma téléphone au volant man ko man déjà nga permis mais avant nga may naan da attestation lu mu mën en fait nga def utiliser ce téléphone au volant Je laa lay mais non aucune explication aucune explication mu defal la attestation et pire encore ñu defal la attestation pas xamante da nga war le dimanche attestation boo war a dem jëli ji ko le dimanche ba wan ko collègue am ni leen may grand man damay laajte parce que xaw ma bu nekkee man ma téye sama téléphone di ko dugal sama poche utilisation la oui wala non ñun ma non bon grawul grawul demal rek nga gérer ko man leen beneen mur bi le quinze da ngeen di liggéey ñun ma noonu bon xaaral ñu dem ñu wax ko mu changé ko mu dem mu ne ko du ko changé mu dem mu ni du ko changé le 15 bii nii dimanche bii nii dimanche dimanche bii nii laa war a dem fooyee kan laa fay fekk bay naan damay retirer son permis attestation bi war a jeex dimanche léegi donc man waruma dox samay soxla dimanche quoi bu ma doxee samay soxla ñu ni ma ok da nga dawal oto te yoroo permis boo génnee attestation ñu la attestation bi valable en fait man dama comprendre quoi dama bëgg xam ñun ay ay citoyens sénégalais nañ maa ngi koy dégg mi naan waaye man contrôlé naa ku ne man nga contrôler ku ne nga ñàkk contrôler ku ne man loolu sama yoon newu ci man en fait je suis insignifiante vis-à-vis de la police police institution la dañ ko jox cër bu ñu amee problème ci police dañuy jëm la preuve wax naa ko léegi am naa deux plaintes yoo xamante ni ñu ngi dormir ci point E boobu benn plainte boo xamante ni dañ ma agressé point E boobu police point E boobu la la la la plainte bi nekk ba tey jii ba sànq AA 939 EP oto bi nga xamante ni c'est le euh, agresseur yi ma agressé woon si la ñuy nekk oto boobu ba tey mun ñu ko gis ci Dakar

bu mu ñëwee wax dam lay naan carrément ah sëñ bi lii de maa ko def wax dëgg yàlla je le reconnais léegi lan la da nga may attesté boo may attesté ma jël bu nekkee da nga ma baal ma mën la jërëjëf mais man kon ne dem sama yoon mais man déjà utilisé wu sama téléphone au man mi ko permettre ni ko duggal nga xool sama historique appel parce que man j'en ai pas besoin téléphone bi dañ ko synchroniser ak bu ñu ma woowee day décroché directement ci dina utiliser commande vocale ci saa si dina dina dina dina dina woote j'ai pas besoin de manipuler le téléphone damay dawal oto ba noppi damay nekk di bind ay message non mais vraiment vraiment vraiment lii en fait abus la abus abus kase la du leneen loo xamante ni dul abus ñu bindal la nag loo xamante ni ñoom xam nañu ni léegi bu ñu wàcc léegi ñu wàcc léegi man mënu ma dellu en fait mënu ma dellu euh, point e. bala may dem point e, ñom ma fekk ñu wàcc te suba duñu liggéey bala may dem point e, fekk ñom ñu wàcc parce que en fait dama am rendez-vous mënu ma ko raté mais effectivement Mendy li nga wax la bàyyi ba lundi nga doogay dawal oto bi parce que en réalité boo dawalee oto bi ñun la ok amoo permis waroo dawal oto bi en fait c'est ça parce que ki la bindoon attestation bo xamante dañ ko def dimanche dimanche ñëpp xamni dimanche du jour ouvrable ñun la da ngay dem ci bureau contravention commissariat nga nga nga nga mi ngi nii il devra se présenter pour retirer au commissariat de Point E le 15 euh, octobre 2023 à 9h dimanche. momu policier ni ko li nga def ni 15 bi changé ko def ko 16 mu ko du ko def tegal ko ci ki mo gëna ndaw ci ñi may contrôler 3000 francs yi du dara.

wallahi du ma taxaw bu ma nekkul woon ci télé yi parce que nag boo en fait yenn yi boo ko defee dañu lay naan dafa am looy jaay moo tax bu ñu bëri tey ji da ngay da ngay bës sa xol accepté ko parce que da naan no bu ma réagir nii dañuy naan dafa am loo di jaay mais nga ñëw tey jii taxaw malgré que moom mu ngi la interpellé interpellé boo xamante ne du du du yoon en fait kenn permettre la loolu yow eh yow laay waxal taxawal ne